wa caafiyati alabdaani wa shifaa'iha wa nuuri alabsaari wa diyaa'iha muhammadin xabibi alxaq wa radia allahu an sheykhina wa wasilatina ila rabbina xaadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu sante suñ boroom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne ci mbaaxam ak kàttanam ak ndimbalam ci lanu mayoon daaw ak at yi ko jiitu ñu teew fi ngir waxtaanee tomb bu am solo ci tomb bi diine ñu dajewaat ren ngir waxtaanewaat benn ci tomb bi diine yi nga xam ne ak jullit dana ko soxla saa su waaye bala ñoo jëm ci loola rek ñu nuyu bu baax tey ziyaara al cheikh muhammadunil muntaqa ayyadahu llahu wa nasara di nuyu tey ziyaara jàmbaari boppam ji di soxna jaariyatullahi mariam moom cheikh muhammadul muntaqa di nuyu alhaaji maam cerno ibnu cheikh muhammadul mustapha bachir waaye di nuyu seen rakk sëriñ Moussa moom cheikh muhammadul muntaqa waaye di nuyu mboolem waa fédération daayira maam jaara yi nga xam ne ñoo féetee ndakaaru te aju ci soxna jaara moom sëriñ Muntaxa di leen nuyu bu baax bu ñu nuyoo jëwriñu liggéey bi rekk sëriñ naar jenn dana mat sëkk ngir mu yegg ci mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom la ànd liggéey bi muy mboolem soxna yi ak mboolem jàngkati xasida yi ak mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi tey ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha suñ borom yàggal ko fi lool te mu am ànd ak wér noonu la ñuy ñaanale réew mi yëpp ak jullit ñi yëpp mbas mi nga xam ne mi ngi tasaaroo ci àddina suñ borom musal ci mboolem jullit ñi waaye jeexal ko ba nit ñi mën a dellu ci seen yitte xam ngeen ren rek ni réew mi bindoo ni àddina bindoo sax laay wax moo tax conférence bi. Euh, soxna si ci yitteem ak bëgg-bëggam lu baax ak topp liggéey bi moo tax mu fas yéene ren ñu defee ko nii nga xam ne sam samedi ji nga xam ne mooy ñaareelu samedi ci weeru koor gu nekk ci la daan am ren ñu fës ko yéene enregistré incha allahu su ko defee mën ko jàllale ba mboolem ku ko daan topp ci euh, tele yi tele Lamp FM ak euh, mboolem tele yi nga xam ne dañoo nekk en ligne ñu mën koo topp ren ñu fas yéene waxtaanee lenn lu am solo ci dundu doomu aadama muy jikko jenn jikko ci jikko yi nga xam ne ab jullit war na koo làmboo saa ne muy jikko joo xam ne ci la xel di dalee ci la nit di lekke ba suur ci la nit di naanee ba màndi ci la nit di ñoŋalee diineem ci la nit di ñoŋalee ab deram muy jenn jikko joo xam ne mbooleem jaamukatu yàlla yu mag yi xamee nañ leen jikko ju jikko jooji muy jikko joo xam ne mooy jikkoy nit ñu baax ñi mooy jikkoy yonente ya te mooy jikkoy saalixiine ya ak ña nga xam ne ñoo topp ca ñoom mu di alwaraaw muy sàmm sàmm nag saa suñu ko waxee boroom xam-xam yi nee nañ sàmm mooy nit ki wattandiku lépp loo xam ne yàlla da koo xaraamal ak lépp loo xamee ne saa su koy def am xelam dana am jaaxle ci ñàkk goo wóolu ñàkk wóolu loola loola mooy sàmm sàmm boroom xam-xam yi nee nañ mooy bàyyi lépp loo xam ne amoo dara lu la ca leer yaa nga ca am sikki sàkk nga bàyyi ko dàq ci sa xol bi lépp loo xam ne dana tax nga am ayib waaye jàpp ci buumug suñ boroom gi nga xam ne mooy buum gu dëgër gi loolu moo di sàmm am na yeneen ulama yu xam ne fiiree nañ sàmm ne mooy bàyyi lépp loo xame ne ragal nga ne dana la indil ak lor bu ëllëgee ci pencum suñ borom subhanahu wa ñeneen ñi ne déedéet sàmm day moo di nit ki génn ci lépp loo xam ne ak lënt la mu bàyyi ko bàyyi lépp loo xam ne jëf ñaaw la loolu tax borom bi subhaanahu wa taala tagg ci alquran ñi nga xam ne dañoo sàmm seen diine sàmm seen ngor sàmm seen jikko sàmm seeni làmmiñ sàmm seeni cër wane ne ñooña daal ñooy ñi nga xam ne ñoo jiitu ci mbooleem jëf yu baax yi inna alladina hum min xasyati rabbihim mushfiquun walladina hum bi aayaati rabbihim yuminuun walladina hum bi rabbihim laa yushrikuun walladina yu'tuuna maa atuu wa quluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun ulaa'ika yusaaricuuna fi lxayraat wa hum lahaa saabiquun borom bi tagg na foofu ñi nga xam ne yore nañ jikkoy sàmm muy ñi nga xam ne sàmm nañ seen ndagal yàlla sàmm aaya yi nga xam ne borom bi indi na ko ne nañ ko gëm mooy ñu gëm alquran te duñu bokkaale yàlla dara te lu luñ am joxe ca te yàlla tax te seen xol saa su ne muy daj suñ borom subhanahu wa taala ci seeni jëf borom bi nee na ñooñu ñoo ñooñu kat ñooy ñi nga xam ne ñoo gaawtu daw jëm ci da jëm ci aw yiw te ñoo ñoo di ñi nga xam ne ñoo jiitu sàmm nag suñ ko waxee am na ngëneel lu bari am na wàccuwaay yu bari ci diine rawatina ci jamono ji nga xam ne ñépp soxla nañ nit ñi sàmm nit ñi wattandiku nit ñi sàmm seen bopp sàmm seen lépp jamono joo xam ne néew na bu nit sàmmoo mu mel ni sàmm dafa dem ba amatut ci jamono nga xam ne doomu aadama yi ci wut alal ak bëgg alal ak topp poñetum àddina dem nañ ba mujj mel ni koo xamee ne dafay taxanti guddi seetatul ndax matt lay wut wala dég lay wut wala lu baax lay wut wala lu muy wut day dajale rek seetatul yàlla ci ay jëfam seetatul yàlla ci ay waxam seetatul yàlla ci na muy amee seetatul yàlla ci dara te sàmm mooy tax nit ki mën a seet loolee mën a seet loolu ndax sàmmkat bokk yi mooy li nga xam ne mooy wattu doomu aadama moo koy aar mooy aar nit ñi aar seeni der mooy aar seen deret mooy aar seen alal ndax nit ku sàmm du tooñ du jël alalu jàmbur du tuur deretu nit sàmmkat bokk yi bokk na ci ay ngëneelam mooy sabab si nga xam ne mooy tax ak mbaax tasaaroo ci àddina sàmm mooy tax nit a doylu sàmm mooy tax nit a tabe sàmm mooy tax nit ki wattu aw làmmiñam ci lépp loo xamee ne borom bi subhaanahu wa gërëmu ko sàmm mooy tax nit ki du jëw mooy tax du rambaaj mooy tax du indil jaami borom bi subhaanahu wa taala jenn fitna ci sàmm daal ci la lépp loo xamee ne yàlla bëgg ko ci kaw suuf sàmm rekk moo ko fi mën a jële moo tax xuzeyfatu bnul yamaan nettali benn xadis jële ko ci ngën ji mbindeef sallallahu alayhi wa wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fadlul ilmi xayru min fadlil ibaada wa xayru diinikumul waraa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ngëneelul boroom xam-xam boroom xam-xam moo gën jaamu yàlla xam moo gën jaamu yàlla ni muy waxee ci beneen xadis ne nawmu aalimin xayrun min ibadati jahilin nee na ki xamul dara lu ay jëfam rëy rëy rëy rëy nee na nelaw boroom xam sax moo gën moo gën moo ko gën waaye nee na wa xayru diinikumul wara nee li gën ci seen diine mooy sàmm mooy ngeen wattu seen bopp abu hurayra radiallahu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na ànd ak moom ba yàgg mu digal ko ne ko yaa aba hurayra kun warian takun abada annaas wa kun qanian takunu ashkara annaas wa ahibba linnaasi ma tuhibu li nafsik takun mumina wa axsin jiwaara man jaarak takun muslima wa aqil wa aqil daxka fa inna kathrata daxki tumiitul qalba mu ne ko abu hurayra na nga sàmm saa soo sàmmee sa bopp yaay ki dàq jaamu yàlla ci nit ñi waaye na nga doylu saa soo doyloo yaa gën a mën a sant yàlla ci nit ñi waaye na ngay bëggal sa bopp li nga bëggal jaami yàlla yi li nga bëggal nit ñi na koy bëggal sa bopp soo ko defee danga nekk ku gëm yàlla dëgg waaye wa ahsin jiwaara man jaarak takun muslima na ngay rafetal sa diggante ak say dëkkandoo soo ko defee danga nekk jullit dëgg waaye na ngay néewal say ree ndax ree ju bari dafay rey ab xol dafay rey ab xol Habib ibnu Abi Saabit nettali na ne nee na jële nañ ci boroom xam-xam ñu ne doomu aadama daal jullem gu bari bu la yéem jaamu yàllam gu bari bum la yéem kooram gu bari bu la yéem waaye li la war a yéem ci nit ki li nga war a xool ci moom daal moo di ak sàmmam ak sàmmam digganteem ak boroomam ak sàmmam digganteem ak doomu aadama yi saa soo xam ne nit ki nekk na di aji sàmm ci li nga xam ne suñ boroom wër wërsëgaleel na ko ko nee na kooku daal fa huwa abdullahi xaqan muy dëgg dëgg jaamu suñ boroom bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala soxla bu ñu waxee sàmm nag danañ mën a ci tënk rek danañ mën a indi ay misaal yu bari ci yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu sàmmoo woon yenn ci saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim ni ñu sàmmoo woon ba yegsi ci cheikhuna cheikhul xadim ni nga xamee ne noonu la bàyyee woon xel sàmm ba bind ay mbind yu bari yoo xam ne da cay leeral njariñul sàmm ak mag ñi nga xamee ne ñoom la yaroon aku njabootam ba yegsi ci jamono ji ñu mën a joxe ay misaal ci ay nit ñu baax ñoo xam ne seen yitt ak seen bëgg-bëgg lépp moo di sàmm yonent bi sallallahu alayhi wa nan la bàyyee woon xel jikko ju baax jii di sàmm ndax sàmmkat mooy jikkoy yonente ya te mooy melokaanu gaaña ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa li gënoon a néew daana wax nit ñi leneen na ngeen ragal yàlla doonte ci xaritu tàndarma la na ngeen ragal yàlla doonte ci xaritu tàndarma la lu ngeen moomul bu leen ko lekk loo xam ne seen yoon nekku ca bu leen ca dugg lépp loo xam ne yàlla da ko xaraamal na ngeen koy daw lépp loo xam ne day yàqub ànd na ngeen koy wattandiku lépp loo xam ne day taxa nit ki bu ëllëgee mu am kersa digganteem ak boroomam wala mu di ci am mbugalum yowmal qiyaam na ko jaam bi di wattandiku loolu taxit mu tàmbalee woon ko moom alayhi salaatu wasalaam ci boppam abu hurayra radiallahu anhu wax na ne yonent bi daana ñëw këram xiif lool ñëw dugg néegam fekk benn doomu tàndarma ci kaw lalam yonent bi nee na ma yëkkati doomu tàndarma bi ngir lekk ko sama xel ne yar ci ne est-ce que doomu tàndarma bi bokkul ci ci alali baytil maal nee na ma tegaat ko ndànk ngir bañ lekk dara loo xam ne lewut mbokk yi ana ñun ak yonent bi sallallahu alayhi wa li ëpp ci nit ñi li ñuy lekk dara lewu ci sàcc naxaate trian waxlu lu dëgg nangu alalu nit ñi ak lu am bi xayri tibi am fusihim rek ci la nit ñi nekk te alquran nee na qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni ne jaam ñi saa ngeen bëggee saa soo xamee ne bëgg ngeen seen borom subhanahu wa taala topp leen yonentam bii nga xam ne moom la indi ci yéen moo tax mu waxaat ne walakum fi rasulillahi uswatun xasana nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen roy ji gën a rëy nee na kuy roy royal yonent bi sallallahu alayhi wa ak ñi nga xamee ne ñoo topp yoonu yonent bi sallallahu alayhi gis nga ci sàmm alxasan ibnu ali muy satu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Fatima moo ko jur wax na ne am na bis daa toog ak yonent bi sallallahu alayhi mu jël ci tàndarma ji nga xam ne moo nekkoon ci baytil muy trésor jullit ñi nga xam ne jullit ñépp a ko bokk mu jël ci benn doomu tàndarma daal di koy lekk bi mu ko sexee rek yonent bi wax ko ne ko wàcc ko génnal yàbbil yàbbil tàndarma bi mu yàbbi ko mu ne ko na nga xam ne nun du nu lekk sarax te lii alalu baytil maal la moomuma ko moomoo ko kon waroo cee jëfandikoo lenn loo xamee ne lenn loo xam ne jaaduwul ngir nga lekk ko ci boo jógee ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñu mën cee misaal misaal yu bare bare bare bare ci sàmm gu mu sàmm woon ci diggante mag nit ñi ak seen alal ak seen lépp waaye xoolal jàmbaarab jadi abu bakrin siddiq zu siddiqi wal wafa rafiqu nabiyu l mustafa al gaaru u ni ko cheikhul xadim waxee Seydina Abu Bakrin Siddiq wax nañ ne amoon na dafa am koo xam ne ab xalem la woon moo ko daan toppatool li muy jëfandikoo ci lim koy liggéeyloo benn bis xale bi indil ko lekk mu lekk ba noppi xale bi ne ko ndax xam nga tey jii li nga lekk mu ne ko mu ne ko sama alal laa jëfandikoo julew mu ne ko déedéet xale bi ne ko déedéet lu jëkk may du dugg ci lislaam dafa am benn waay boo xam ne dama ko seetaloon bi ma ko seetalee waaye seet ga sax dama ko naxoon rek waaye la ma ko waxoon am ma gis ko tey jii mu yëkkati xaalis mu yëkkati dara fayee ma ko loola laa la toggale tey Seydina Abubakar dal di jël loxoom dugal ci gémmiñam ba dugal ci gémmiñam ba jot buli ga daal di wàccu lekk ga daal di ne man daal duma lekk dara loo xam ne xawma cosaanam wala daganul wala daganul nga xam ne ci sàmmuk Seydina Aboubacar ni Siddiq Seydina Omar ibnul Xataab mas naa fekk Seydina Aboubacar di jël aw làmmiñam ñoddi ko ba mu génn Omar ne ko Seydina Aboubacar looy def nii mu ne làmmiñ mi daf maa rotal daf maa wax looloo xam ne bëgguma koo wax bëgguma ko wax bokk na ci sàmmoom moom Seydina Aboubacar olama yi wax nañ ne yeggoon na ci bàyyi xel yàlla ak di topp ndigali suñ borom yi ak di wattu ay tereem ba saa soo xamee ne day wax sax dañ daan yëg ne aw res mooy xeeñ ndekete resu boppam moo lakk ci ragal yàlla lakk ci ragal yàlla ba saa soo xamee ne day day wax loola ñu di ko muy xeeñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana joxe misaal ci sàmm ci benn waay boo xam ne dafa ma sa jënd ab terrain bi mu ko jëndee ba tàmbali di ko exploiter rek fekk ci mbuus goo xam ne dafa def or bu bari mbuus gu def or bu bari mu dal di woo ki ko jaayoon terrain bi ne ko man kat suuf nga ma jaayoon waaye dama fa fekk or ñëwal jël ko ki ko ki ko ko jaayoon ne ko man bi ma lay jaay suuf si lépp laa la jaay loo fekk yaa ko moom kooku ne ko man sañu ma koo lekk ñu di ca coow di ca coow di ca coow ba mujj dem ci benn nitu yàlla mu ngir mu àtte leen kooku ne ko ndax yow mii am nga doom ju jigéen ndax am nga doom ndax am ngeen ay doom kenn ki ne ko man de am naa ab jaam bu góor ka ca des ne ko man de am naa ab jaam bu jigéen mu ne ko jëlal sa jaam bu góor bii nga takkal ko sa jaam bu jigéen bii ci alal ji te ngeen te ngeen jox leen ci ñu dundee ko noonu nga mën a toppee Seydina Umar ibnul Xattaab jamono yi nga xamee ne nekk na amirul muminin nga xam ne ndoddu ci ndoddam ci loosam ci la ci la jullit ñépp aju daana def bu guddee muy wër ci kër yi di seet ana ñen ñoo lekkut di seet ana ñen ñoo am ay jafe-jafe di seet ana ñan lañ war a dimbale mu leen di topp di leen di dim di leen dimbale ba xissa yu bari mënees na ko cee mënees na ko cee nettali xoolal ku mel ne Omar ibn Abdul Aziz nga xam ne ci ak sàmmoom yegg na ci jamono yi mu nekkee amirul muminin ku mat di delloo siwaat la moom Omar ibn Abdul Aziz ndax dafa nekkoon njiitum réew jiite jullit yépp waaye dund na fi ba jóge fi menn mbaam la yore yoruloon darara ci alal te booba wax nañ ne mooy mooy moo bi mu fi nekkee mooy jë mooy jë état bi nga xam ne moo ëppoon alal ci ci jamono yi nga xam ne lislaam mi ngi am doole mi ngi am doole waa këram daanañ lekk ñebbe ak soble ba ki leen di jàngal alquran sax ndax seen Amr ibn Abd daan def saa yoo xamee ne julli na gee rek mu ñëw seet si xale yi saa yu ñëwee rek mu gis gone yi jël seen mëlfa yi muur seen gémmiñ mu laaj ki leen di jàngal ana lan moo tax saa soo xamee ne ñëw naa rek gone yi di muur seen gémmiñ ni mu ne ñoom day ñebbe ak soble la ñuy reeree te dañuy bañ xeñ xetu soble gi di la xeeñ Seydina Umar ibn Abdul Aziz dajale leen ñoom ñëpp ne leen doom trésor jullit ñi day magasin yaa ngi ni fees dell ak dund xaalis baa nga ne bari fa lool ceeb baa nga fa dugub jaa nga fa fariñ baa nga fa su leen neexee ma jël ci jox leen ngeen lekk bu ëllëgee suñu borom jël seen baay lakk ko lakkaale leen ndax jox na ak njabootam loo xam ne daganul ñu lekk ko ndax moomuñu ko doom yi daal di jooy jooy ba bi ñu xiqee ne ko bàyyi bàyyil ñu lekk ci ñebbe ji bu ëllëgee suñ borom jéggal suñ baay jéggalaale ñu te booba mooy léppi mooy léppi alamul islaam yi moo yore lépp daana wax ne daana wax ne picc diiru muy nekk amirul muminin picc sax su mattee meneen piccam su yowmal qiyaame borom bi subhaanahu wa taala moom la koy moom la koy laaj ñu joxe mën a joxe ci taabian yi rek kenn ku ñu wax al imaamul bazzaz yonent bi salallahu alayhi wa sallam day wax ne man taraka cheyan lillahi awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla suñ borom jox lu ko gën Seydina Amr Seydina al Bazzaz wax nañ ne dafa nekkoon ci Makka daan fa jaamu yàlla waaye nekkoon ku néew doole lool bis mu xiif xiif ba ne xaaral ma jóg dem ci kaaba gi ndax ma daje faak bàyyi defal yàlla bu ma dimbalee lu ma lekk bi mu ñëwee bay bëgg dugg ci kaaba gi rek mu fekk benn mbuus mu fakkastaloo mbuus gi yëkkati ko fekk mu fees dell ak caqub or bu mag mu dal di koy jël bi mu ko jëlee dal di koy ubbi gis muy or mu waaxu ba këram mu de denc ko fa dal di ñëwaat ci kaaba gi yéene di yéene naan ana kan moo fi réer la caqub or ana kan moo fi réer la caqub or ba benn koo xam ne dafa ñëwoon aj si makka dal di génn ah man de sama caqu or dafa réer nangam ak nangam ak nangam la mel ñaa nangami bu la ca ñu dem imaamul Bazzaz ubbi ko wàññi ko fekk mu tolloog loola mu dal di koy jël del delloo ko fekk ki réer la caq bi tamit waxoon na ne fekk moom mu ngi yéene ne ab caqam dafa réer ku ko for dana la jox juróomi téeméeri diinaar juróomi téeméeri diinaar ca booba jamono xaalis bu baree bari la imaamul Bazaaz ñu jox ko xaalis mu ne amut sañ-sañu for alali jàmbur delloo ko borom borom di ko ca neexal dal di delloo delloo delloo ko bi nga xamee ne imaamul Bazaaz ñibbi na aj gi jeex kooku ñibbi benn bis mu jóge Màkka ne day dem liggéey dugg ci gaal gaal gi daw ba ci digg dex gi ba ci digg géej gi gaal gi toj nit ñëpp daal di lab moom mu fekk benn bant rek mu tëdd ci bant bi di daw ak moom ba ci benn île mu costé foofu bi mu fa costé ko dal di koy sobe mu génn bi mu noppee mu ne dafa bëgg a julli ndax fii am na jàkka ñu ne ko am na jàkka mu dem ci jàkk ji daal di julli gis kaamil alxuraan bu fa nekk mu tàmbali di fa jàng ñu ne ko ah, da ngaa mën a jàng mu ne waaw ñu ne ko ñun de soxla woon nañ ab jàngalekat soo bëggee nekk fii nga nekk fii di jàngale alxuraan ñu di la fay mu nekk fa di jàngale alxuraan di jàngale alxuraan ba bis waa dëkk ba ne ko yow daal suñu sañoon nga toog fii ñu may la soxna am na benn xale bu jigéen boo xam ne baayam dafa gaañu su la juboo ñu may la ko mu dal di nangu ñu jëli xale bu jigéen ba may ko ko bis ba nga xamee ne indi nañ xale bu jigéen bi ci moom caq ba nga xamee ne moom la foroon ca makka moom la fekk xale bu jigéen bi dal di koy takk muy xool caq bi rek moom imaamul Bazzaz di ko xool di ko xool ba yàgg nit ñi ne ko waaw sëñ bi yow ñu may la soxna su ndaw amoo lenn looy xool lu dul caq bi mu ne caq bii day daf may fàttali benn xissa daf may fàttali benn xissa ñu ne ko ban xissa mu nettali lam séqoon nag bàyyi xale bu jigéen bi ca mag bàyyi xale bu jigéen bi ca Makka te xamagul ne kooka moo jur xale bu jigéen bi bi mu ko waxee waa dëkk bi daal di yuuxu tudd yàlla daal ne bàyyi xale bu jigéen bi de bi ñibbisee ca ajam googee da doon ñaan suñ boroom yàlla na dajeeg kooka ba may ko doomam yàlla nangu ñaanam mu ñibbisi imaamul Bazzaz denc ci soxna soosu am ci ñaari doom ñaari doom yi gaañu mu doon caq ba keroog bi muy nettali mi ngi yore ay per ci biir caq boobu di wax ne man taraka shay'an lillahi awadahu llahu xayran minhu kon sàmmoo ngi noonu sàmm nag ku ko wax danga wax sàmm ay cër ci ngay tàmbalee ndax cër yi ñooy ñooy li nga xam ne ñoo mën a yóbbee doomu aadama ci bépp musiba moo tax Sëriñ Tubaa di wax ne na ngeen sàmm seeni cër ndax bépp cër boo xam ne de mooy nga ci suñ borom su ëllëgee ca bunt booba lay jaare tabbi aljanna nee na juróom-ñaari cër yi cër bu nekk dafa jàkkarlook ab bunt ci safara nee na su fekk cër boo ciy mooyee yàlla bu mal qiyaama cër booba ngay tàbbee ca bunt booba ngay jaare tabbi tabbi sawara kon yàlla nañ ci suñ borom musal ndax cër yi xéewal la yu yàlla defal nit nga am loxo loxo bi nga mën cee tibb mën cee dóor mën cee fayu mën cee jël léeg-léeg mu doon fourchette léeg-léeg mu doon paaka loo ci bëgg a def nga def ko léeg-léeg nga mën cee défendre sa bopp ci benn ci benn loxo bi rek gémmiñ gi nga mën cee lekk mën cee noyyi man cee naan lu sedd mën cee naan lu tàng lépp nga mën ko cee def ci genn gi kon xéwal googu suñ borom defal jaam bi jaam bi waru koo caaxaane jaam bi waru koo waru koo caaxaane te cër yi kat lépp loo xam ne jaam bi def na ko ci su yowmal xiyaamee dees na ko ko laajaat dees na ko ko laajaat ndax cër yeey wax moo tax borom bi subhaanahu wa taala di wax ne al yawma naxtimu ala afwahihim ay tukallimuna aydihim a tashhadu arjuluhum ma kaanu yaksibuun nee na bisa ngi ñëw boo xam ne nee na dañuy tëj gémmiñ dootuñu ko laaj waaye cër bi sàccoon day loxo bi sàccoon day wax ne man maa sàcc nopp bi déggoon lu mu warta dégg nopp day wax ne maa dégg tànk bi doxi woon wax ne man maa doxi woon saa soo xamee ne jaam bi jaam bi wax na cër yi ne leen waaw yéen xanaa lan moo tax ngeen di ngeen di wax te nga xam ne suñ may lakk maag yéen a koy bokk maag yéen a koy bokk mu ne ko suñ boroom mi loo ñëpp moo nu loo te ku yàlla loo ku yàlla waxloo da nga wax ku yàlla qaalu antaqana alladi antaqana allahu alladi antaqa kulla cheyin wa huwa xalaqakum awala marratin wa ilayhi turjaun moo tax cër suñ boroom dañu ko wattuloo ba tax sëñ Tubaa di wax ne wa xifduhu aljawaarixa albatna lisaan farjun wa rijlaani wa aynaan saabiuha al uznaani man laha raa an ilmaasi xaada qasdan ajmaa is kullu udwin saaxi minha qaabalat baaban min anniiraani fii ma qad sabat sëñ Tubaa nee na mboolem cëri doomu aadama yi juróom-ñaar muy biir làmmiñ awra ñaari tànk yi ñaari bët yi ak ñaari loxo yi ak nopp yi benn bu nekk dafa jàkkarloog benn bunt ci safara nee na kon nanga leen sàmm ba benn bu la bu bul jaaree ci benn sa benn cër ba tabbi ba tabbi sawara ba tabbi sawara moo tax cër yi ñu war leen sàmm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci làmmiñ ci sàmm aw làmmiñ mu daan wax ne mu daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw li yasmut nee na képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm nga bis penc na ngay wax lu baax soo ko mënul nga noppi wax ju bon nag Sëriñ Tubaa dana tere na ko ci ay mbindam lu bari wax ne xaqu xaqiqatul qawlil qabiixi kullama takunu minhu za xayaa in faalama wax ju ñaaw daal mooy jëpp wax joo xam ne saa soo ko waxee ku ko dégg danga ci da nga ci am kersa da ci da ci am kersa su ko defee wattu aw làmmiñam ci lépp loo xamee ne dana taxa mu mu mu mu tàbbi sawara jaare ko ci làmmiñ moo tax yonent bi sallallahu alayhi daan wax ne jaam bi day su yowmal qiyaame dana dana dana am ay jafe-jafe ndekete baat ba mu ay wax rek moo ko ci moo ko ci moo ko ci dugal yonent bi sallallahu nee na ana lan mooy tàbbal nit ñi ëllëg sawara mu ne xasaidu alsinatihim mooy seeni làmmiñ moo tax mu ne inna al abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi la yalqaa laha baalan yarfau llahu biha darajatin wa inna al abda la yatakallamu bil kalimati min saxati llahi la yulqi laha baalan yahwi biha fi jahannam waliyasu billah yonent bi saa sallam na nit dana wax wax joo xam ne du ca bàyyi xel sax waaye ba mu ko waxee ngërmandeel yàlla da caa nekk nee na loola bu ëllëgee mën na koo tàbbal aljanna waaye dana wax loo xam ne naqari na yàlla loola suñ borom mere ko ci bëtu ba tàbbal ko ci safara kon làmmiñ dafa mat a dafa mat a sàmm làmmiñ wëree ko boyal rek lépp loo xamee ne lépp loo xam ne neex na la wala sopp na la nga di ko ca wax ndax jaam bi war naa xam ne wa maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lépp loo xam ne wax na ko nee na ñaari malaaka ñu ngi ci kaw mbagg yi di ko bind am yaxsabuuna anna la nasmau sirrahum wa najwaahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubuun borom bi subhaanahu wa nee na ndax dañoo jort ne yàlla moom déggul li ngeen nëbbu xamut li ngeen nëbbu ak li ngeen di feeñal te yebal na ci ñun ñaari malaaka yoo xam ne lépp lu ñu def ñu ngi koy bind sàmm mbokk yi war na ci mboolem jikko ju ñaaw mboolem jikko ju ñaaw nit ki war naa watt boppam ba du ko def daa war a am ay teggin yoru jikko ju rafet sori lépp loo xam ne jikko ju ñaaw la ndax ci jikko ju ñaaw ci la ci la nit ki di ñàkkee diineem ci la nit ki di tàbbee bu ëllëgee ci mbugalum borom bi subhaanahu wa taala moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yowma alqiyaama axaasinukum axlaaqa nee na ñi gën ñi may gën a jege yowma alqiyaama ñi nga xam ne ñoom laay gën a sopp mooy borom jikko yu baax yi borom jikko yu baax yi ñoom laay gën a sopp mu waxaan ne ñi nga xam ne ñoom laa gën a bañ nag ñoo may gën a sori yowmal xiyaam mooy borom jikko yu ñaaw yi kon nit ki dafa war a sàmm boppam ba fexe ba yor ay jikko yu rafet wattandiku mboolem jikko yoo xam ne jikko yu ñaaw la bokk na ci yi nit ki war di sàmmoo mooy lépp loo xam ne xamu ko yoonam newu ca mu bañ caa tàbbi lépp loo xam ne xamu ko yoonam nekku ca mu bañ caa tàbbi loola ci sàmm ci la bokk ci sàmm ci la bokk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa laa yaanihi bokk na ci ji diine ju rafet ak jikko ju rafet mooy nit ki lu mu xamul bu mu ca dugg moo tax sëriñ bi daan wax ne loo xamul bu ko wax loo mënul bu ko def lu sa yoon nekkut na nga ca maandu loola mooy firi xadis bi rek bokk na ci yi nit ki war a bàyyi xel ci jikkoy maandu mooy wattu deri nit ñi mooy wattu deru nit ñi ci jëw ci fen ci jaxase ci dugg lu sa yoon newut ci wax lépp loo xam ne saa soo ko waxee mu indi fitna jaam bi war na koo wattandiku ndax ali ndax borom bi subhaanahu wa wax na ne yaa ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min azanni inna baada azanni ithm wala tajassasu wala yaxtab baadukum baada ay ayuhibbu ahadukum an yakula lahma axiihi mayita fa karihtumuhu borom bi nee na bu leen gëstonte bu leen bu kenn topp mbirum nit di ko lunjutu waaye bu kenn jëw kenn bu kenn jëw kenn ndax jëw mi ngi mel ni ngay lekk sa moroomum nit moo tax suñ tubaa di wax ne xaqiqatul xaybati xaqiqatul xibati duuna rayb zikruka xaala shaxsi baada al xayb aw xaala ma bihi taallaqa bihi bima yakrahu law samiahu faltaalama wa ghibatu lmuslimi fi qawli ba aqbahu min aklika jiifata alxamiri wata Sëñ Tuubaa di wax ne nee na jëw daal mi ngi mel ni mi ngi mel ni lekk sa mbokkum julit moo tax jaam bi war naa góorgóorlu ba wattandiku ko war naa góorgóorlu ci sàmm nag yi tamit sàmm boppam ci lépp loo xamee lekk xaraam la ci lépp loo xam ne lekk lu xaraam la maanaam lekk alali nit ñi walla jël loo xame ne moomoo ko wa aklu maali nnaasi inda al ulama bi gayri tiibi nafsi aydan xaruma wal aklu bi diini wa bi shafaa wa hakada taxiru fiali taa Sëñ na lekk alali nit ñi ci lu dul seen tey bakkan ak lekk ci diine wala lekk ci ramu nee na loolu yépp day lu xaram la lekk alali nit ñi ci lu dul seen bëgg-bëgg moo xam nguur la moo xam ku yor société la moo xam kuñ dénk alal la moo xam ku mën a doon na nga wattandiku lekk alali nit ñi ci lu dul seen tey bakkan wattandiku bu baax li nga xam ne mooy lekk ci diine mooy ñu di la ger di nga di nga di la ger euh, walla nga nga nga ne ci béréb di fa liggéey di laaj ay neexal di lekk ay neexal nit ki mu yaatoo ci suñ ci suñ ci suñ jamono ji loolu lu mata bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la suñu ñëwee ci sëriñ bi moom leeral wane ne wax lu dul noona ci saw làmmiñ loolu lu yàlla bañ la lu yàlla gërëmul la moo tax mu daan wax ne xaqiqatul kadibi ixbaaruka maa lam yakun saabitan bi qawli ulama wa huwa qabixun muujibu isjala laanata zil jalali laanatu zil jalali fi ma nuqila nee na wax lu dul dëgg na ko nit ñi wattandiku na nit ñi wattandiku ndax wax lu dul dëgg dafay sànq ak dund boo ñëwee ci sëriñ bi nag ci wàllu sàmmam xam naa ñu ngi ñuy wax ne waxtu yu jeex na waaye buñ ci tegee ñaari minute rek indi ay misaal yu bari ku xool sëriñ bi ni mu dundee woon nga xam ne boo masaa ñëw ci moom sax tudd nit dalay wax ne buuf bul tudd ku fi newul daa ko tere lu baree baree bari daan tere nit ñi ñuy jaxasoo góor ñi ak jigéen ñi daan tere nit ñi ñuy wattu buur yi am ndajeem góor ak jigéen mosuñoo jaxasoo kenn musut lekk ba ca jaam ña nit ñi jàppee woon Samba saaju sax mboolem ku ca amoon boo jébbalu ci moom daf lay wax delloo ko dalay wax delloo ko misaal mi ci mën a joxe rek gis nga keroog bi nga xamee ne Qaadi ma jaxate kala ñëw na ci sëriñ Momar Anta Sali wax ko ne dama am lu ma lu ma bëgg ñuy waxtaan ba yàgg ba waxtaan ci am mbind mu ne ko tee ngaa woo Ahmadou Bamba sa doom ji mu bindal la ko biñ ko wooyee maam xaadi génne xalima ak daa jox ko sëriñ bi ne ko xaaral tuuti ma da wuti xalima daa mel ni xalima gi dafa ma dafa xaw a lay balaa lut xalima ga daal ndax moom loxoom fasut yéene jël di di ci laal lenn loo xamee ne maanaam wóoru ko ndax ka koy jëfandikoo moo ko moom ca la daw dem ci àll bi waaye ginnaaw bi sëriñ Momar Anta Sali daa wax maam xaadi ne ko xalima gii rek moom la bañ a laal moo tax mu ne day dem ci àll bi wuti xalima gis nga googu sàmm goo xam ne moom la sëriñ bi moom la sëriñ bi sàmm Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana ci sàmmam wax nañ ne sëriñ Tafsir Diop doomam mas naa ànd ak moom di tuddi doom ñu demee ba ci bay génn kër gi rek nit ñi nuyoo bu bari boobu am benn soxna bu waaxu rek fekk sëñ Tafsir mu dal di koy jox loxo sëñ Tafsir fekk sëñ Mad Lamine joom mu ngi ci kaw watiir bi sëñ Mat Laamin daal di bi mu gisee soxna si jox loxo euh, jox loxo sëñ tafsir sëñ Mat Laamin daa xëmee ci kaw sare bi daanu ci kaw watiir bi la daanoo daan dal di naan li mu def tey bu ko tuubul ba dee kenn mënu koo tee tab bi sawara tafsir lim def tey ba dee bu ko tuubut kenn mënu koo dem kenn mënu koo te dem sawara nga gis ko mel ni sëriñ moor Kayre bis mas nay dugg ci kër dajeeg seen da dugg ci néeg dajeeg seen soxna seeni mbagg riisantoo fekk da doon tudd doom aw xew la fa demoon mu daldi daw dem ca taal ba rek jël gilintug safaral teg ko ci mbagg mi daal di ne day lakk mbagg mi balaa bala bala koo bala bala koo yàlla lakk noonu ñu sàmmoo woon ci jikko yu rafet tamit noonu la mag ñi sàmmoo woon ci jaamu yàlla sëriñ Momar Jaara ci ak jaamu yàllaam sëriñ Daam Abdourahman loo borom daarul moxti nga xam ne ci sàmm diine jàkkaam kenn nanguloon kenn ko fa dugg ak njàpp lu beesut suñu noddee mooy toog ci buntu jàkka ji xool ñëpp ba ñëpp jàpp dugg ci jàkka ji ñu mu door a dugg dafay ay nawaafilam ñu liqaamal ko mu mu daal di julli noonu la sëriñ bi yaree woon ci ak sàmm kon daal ak sàmm mooy diine yonente bi sallallahu alayhi daana wax ne li gën ci seen diine mooy ak sàmm yegg nañ ci jamono joo xam ne nag nit ñëpp war nañoo sàmm seeni i jikko sàmm seenu melokaan sàmm seeni wax sàmm alali nit ñi ndax nit ñi li ñëpp bokk su ko kenn lekkee kooko sàmmwut wax joo xam ne saa soo ko waxee mu jur fit na soo ko waru nit doomu aadama waru koo wax waaye nit warta jëw warta fen warta rambaaj warta def lenn loo xam ne yàlla gërëmu ko kon daal gannaaw waxtu bi dafa tënku dañuy yemale foofu jataay bi waaye di santaan mbooloo mi yépp te di leen gërëm tey ñaan suñ borom ñu teewe ko ay ati ati ati at te mbas mi nga xam ne moo ne ci àddina yàlla na ko fi suñ borom yemal ci baaxuk cheikhul xadim bi jaahi cheikh muhammadul muntaqa di santaat soxna jaara bu baax a baax te di ko ñaanal yàlla suñ borom guddal aw fanam te gën a dëgëral ab taxawaayam wax dëgg yàlla ku seet tem yi muy joxe day saa su ne danaa ko koy wax ne ko mënoon ngaa joxe thème boo xam ne dañuy ñëw rek di la tagg di wax say jëf ndax jëf nga fi lu jar wax waaye mosoo gis loolu waaye li nga gis mooy fexe ba jaami suñ borom yi tege ci njubu yàlla gi yàlla digle fexe ba njàngalem suñ tubaa mii nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi woon muy ndono nit ñi mën caa jaar ngir nit ñi mën a jariñu àddina ak alaaxira ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.